membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir senegaal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bi nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawe liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western Union dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala subhaanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alxakim allahuma allimna ma yanfauna wanfana bima allamtana wa zidna ilma mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di ndokkeel di leen dalal ci suñu jataay yi nga xam ne mooy jataayu koor ñu ngi nekkoon ci xew-xew bi nga xamante ni moo dox diggante Muusa ak Firawna suñu borom subhaanahu wa taala nettali ko ci alquran bi mu koy nettali yonent bi alayhi salatu wasalam nettali na ko ci bërëb yu bëri waaye ci suratul qasas daf na ko natlu alayka min naba'i Muusa wa Firawna bil xaq daf na ko ñun ñoo lay jàngal li nga xamante ni bi mooy xew-xew bi xewoon diggante Muusa ak Firawna mu jiital Muusa ci kaw Firawna ndax Moussa jaamub yàlla la di yonent bu tedd ci yonent yàlla yi Firawna di ku lànkaloon yàlla di ko fetteerlu moo tax mu jiital Moussa waaye nag daf na ko nettali bi bil xaq ci kaw dëgg la tegu ndax am na détails yu ci nekk yoo xam ni ku dul suñu borom subxanahu wa taala mënu koo nettali ndax ñi nga xam ne ñoo ko doon dund fekke ñu ko ña ña ko doon dund fekke ko nekkatuñu fi ku ko fekke woon rek xam lépp na nam demee moom moo la ko mën a nettali te yàlla subxanahu wa taala xam na ci loo xam ni. mbindeef yi nga xam ne sax teewe nañ ko ci jamono jooju duñ ko ci xam ndax wet bi mu wetoon ak Moussa alayhi salaam ca lam ko wax ak la fa xew ca dig mu ko dig loolu kenn fekkewu ko loolu moo tax kon suñu borom rek moo mën a nettali loolu moom rek moo mën moo mën a nettali di nettali xew bi ba nettali ba Moussa demee la la ko suñu borom wax ak la mu ko defal kon bil xaq ci kaw dëgg la ko yàlla nettali waaye li def na li xaw mi yuminuun ñel nag ñoo xam ni dañoo gëm seen borom ñooñu ñooy ñiy jariñu ci li yàlla di nettali ndax nettali ji lu mu am am solo ñi ci mën a jële ay njàng jële ci ay enseignement lu leen di jëriñ mooy ñi gëm yàlla léegi mu daal di wax ne na dafa nekkoon ku jéggi dayoo foofu la yàlla tàmbalee waxtaan bi dafa nekkoon ku jéggi dayoo Firawna dafa nekkoon koo xamante ni dafa amoon kàttan goo xam dafa demoon ba bew ci loolu yàlla subhaanahu wa taala di wane fii benn mbir muy rapport de force bi am te nit ñi léeg-léeg di ci juum ci ne mbir mi di li nga xam ne mooy ngañaay ngañaay li xamante ne bi mooy ëllëg nga mujj des ci kaw suuf gañe loolu nekkul ci gën a bëri nekkul ci gën a bëri kàttan bi nga xam ne mooy kàttanu àdduna di wàllu am-am wàllu armement wàllu soldaar ak yu mel noonu ndax fi yàlla dafa dafa wane ñaari kuréel yoo xamante ne bi ñoo ñëw Firawna ak ñi nga xam ne ñoom la àndal yore woon kàttan gu baree baree baree bëri ak Muusa mi nga xamante ne bi moom mooy représenté banu Israël ñu nekkoon kuréel goo xamante ne gu néew doole lañ. moo tax suñu borom subxanahu wa taala wax ne wa nuridu an namunna ala alladina studcifu fi l ard wa najcalahum aimmatan wa najcalahum alwarithin suñu borom subxanahu wa taala dafa bëggoon non seulement màbb nguuru firawna waaye ñi nga xamante ne bi ñoo koy màbb mooy ñu néew doole ñooñu loolu nekk loo xamante ne defi bu doy waar la waaye yàlla subxanahu wa taala dafay wane xarañam ak kàttanam ak mën-mënam. moo tax fii boo jàngatee mbir mi di nga gis ne léeg-léeg ni nga xamante ne ci wàllu àdduna noonu la ñuy xoolee ci jàpp ne chaque fois rek ki nga xam ne moom moo am doole moo gën a bëri moo am kàttan kooku moom mooy gañe loolu njuumte lu rëy la ci niñ ko yàlla subhaanahu wa taala xamalee fii ndax ñii ñi ngi woon doole ñu leen di ñu leen di def sax ay jaam di leen liggéeyloo ca Égypte ñuy banu Israil yi nga xamante ne ay sëti yonent yàlla Ibrahim lañ jaar ci Isxaq jaar ci Yaquba ndax ci xew-xew bi niñ nettali bu ñuy nettali ni ñuy nettali ay sëti yonent lañ yàlla gënale woon leen ci ñi nga xamante ne bi ñoom ñoom ñoom lañ jamonoonteel yàlla doon yebal ci ñoom ay yonent yu bari ñuy ñëw di leen woo di leen jëmale ci yàlla biñ demee ti ba nekk ci jafe-jafe yu mel nii yàlla dafa jë dafa dafa génn kenn ci kenn ci ñoom koo xam ne moom la jël tàggat ko defar ko jox ko mission wu mu génne leen ci loxo yi Firawna moo tax bi ko yàlla subhaanahu wa taala bi mu ñëwee ci Firawna li mu ko wax mooy daf ko wax ne ko nanga ma jox ñi nga xamante ne bi ñooy bani Israël. loolu la ma yàlla subhaanahu wa taala mooy na dina ma ñëw ci yow ngir banu Israayil yi nga jël def leen ay jaam di leen neewal doole nga libéré leen jox ma leen waaye loolu dafa fekk ne mi ngi ko jiital tamit ci woo ko ci li nga xam ne mooy wéetal yàlla kon fii li fi yàlla subhaanahu wa taala di wane dafa nekk benn démonstration boo xam ne bu doy waar la ci rapport de force yi léeg-léeg ni ñu koy jàngatee bu fekkee da nga gis tey àdduna bi ci bloc yi nga xamante ne bi ñooy fénqaloo ci li ñuy wax ci di ko tuddee choc des civilisations léeg ñu bëri jàngat bi ñu ciy am mooy li ñuy séentu mooy camp bi nga xam ne moo gën a équipé gën a armé wu gën a am kàttan gën a bëri ñooñ ñooy ñiy gañe mais dañuy fàtte benn sew sew sew sew bi mooy ndimbalu yàlla subhaanahu wa taala kon loolu moom mooy jàng bu njëkk boo xam ne dañ koy gis ci yàlla ni mu tàmbalee waxtaan bi ci bi muy ñëw di wax firawna ak yëkkatikoom ak kàttanam ba pare di wax ñi nga xam ne ñoom lañ doon néewal doole moom yàlla faral bu mu leen faral namm leen a jël samp leen ñu des fi ci kaw suuf moo tax sax mu ne wa najaalahumul waarithin moo tax mu ne wa kadalika awrasnaaha bani israil ak li mu waxoon ne fale awrasnaaha qawman axarin qawman axarin yooyu mooy banu israil li nga xam ne moom la firawna nekkee amoon ci kàttan ak ci am am yëpp alal jooj yëpp yàlla daf ne banu israil ci ñoom la mujj dem loolu dinañ ñëw àggale ko ci seen suñu yeneen jataay yi dañu incha allah hada wallahu alam wassalaamu aleykum membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir senegaal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak fu ngeen mën nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bi nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawe liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam